ziare bu baax maa ngi lay bu baax waaw noo jàngatee mbir mi nga xamante ne moo nekk ci fii nga xamante ne buñ nee Thiès ñuy gouvernance sa day dem ci nga xamante ne ci kullu kilifa kullu ndaanaan jaar na lan ngay wax ci lii nga xamante ne mi ngi fi ay ati at kenn mënu koo réglé te problème bu ndaw la wallaay Azim ni nga ko waxee sax xamoo gis nga crise d'autorité moo ñu jàpp dañuy wax a wax a wax ba ñu fal la buñ la falee rek nga fàttali la fal lii moo fi am xam nga lii bu ñu juddoo ba tey ndox maa ngi taa fii te tali bi bu bloqué tali central bi bloqué mais économie Thiès taxaw na donc bu fekkee yow dañ la fal nga war a defar lii nga doog ñi ne la xaar pour nit ñi defar ko mais dafay doy waar lii c'est une honte pour la ville de Thiès. gis nga toute l'histoire du Sénégal laay wax tant que damay wax Thiès mais yemul Thiès histoire du Sénégal ça se résume ci gouvernance bi ci àll bi lu bari fi la xewe décret yu bari fii lañ ko daan bindee. lu bari ci suñu histoire Sénégal fii lañ ko daan bindee mu jëm Kajoor mu jëm Jolof histoire suñu maam yi lépp fii la daan xewee donc patrimoine dañ ko war a sauvegarder xam nga li daal fii moo daal tamit fi ñuy way naan talaatay ndeer talaatay ndeer demal ndeer demal ndeer nga xool niñ ko bàyyee te histoire bu rëy fa ne ndeer boo jiixee bu baax ba léegi da ngay for ay per boo jiixee bu baax da ngay for ay per poste de santé bu baax sax mënuñu ko fa donc suñu autorité yi dama leen di ñaan ci autorités yu bees yi lii mooy changement fépp foo xam ne lu bon la woon lu dul waan dox la ñu defaral ñu ko loolu la ñuy xaar ci ñoom en part par fii fii bu bloqué buntu central bloqué Ceesuwaay yëpp moom la ñu utilisé ñun fan lañ jëm lan mooy dox ci dëkk dara. ana lan ngay wax la le ko gouverneur bi nga xamante ne ci démb lañ ko installé. waaw maa ngi gis euh, ñu di ko ñaanal di ñaanal tam ci fi jóge dama koy wax ni lii moom. Euh, dama koy ñaanal mu baaxee ci moom waaye euh, bay sa weewu tànk du dëgg moom na ci dox ay jéego ba nga xam ni gouvernance bii nii dootuñu ko gisati nii bu tawatee fii dootul am ndox ndox mi nañ ko dugal ci biir chemin de fer am na place yàlla la place bon boo amuloon place sax ñu mën a wax mais am na place bu ndox bi war a mën a jaar canalisation ndox da nga ko wutal yoon yoon lañ koy wutal ndox bi jaar fa dem ça ne nécessite pas de milliard jaru ko amul di laajul milliard volonté politique dong la laaj laajul leneen laajul leneen. ñu ngi lay jaajëfal grand taxawaay bi rafet na parce que ñu ngi lay gis say contribution yooyu lu mel ni yu fu mu am rek wàcc nga fa ak sa équipe mhm. def ci li nga mën mhm. te loolu du sa compétence compétence su mairie la mais ñu ngi la ciy jaajëfal ceesuwaay yi seen i bët gëmmul ñëpp ngi xool xammee nañu ràññee nañu lu ma gëm la Chérif jërëjëf dama koo gëm c'est dans mon sang non dëgg la defara mhm. sama traite la nekk macha allah nit nag du sëb euh, du fóot boppam dëgg la mais wallahi sama traite ji la nekk defaral ceesuwaay xam nga waaw góor rek lay wut xam nga euh, ceesuwaay li may wax sénégalais yi sax laay laay wax mooy dañuy umpale ay nit absolument parce que tey eh, ñi ñu war a fal ci seen gox goxaat dañ ko war a xool xoolaat loolu laa wax léegi des fois nga dugg ci koñ hmm. di fa gis euh, aswaay soo xam ne yorul xaalis de hmm. mais lu rëy lay def ca koñ ba comme yow comme yow dañuy jël exemple comme ci yow mais nit ñi seet ñu kurul ko am xaalis te xaalis nag euh, sunu borom ku ne la ko jox reykatu nit ba yàlla jox na ko alal ju bari hmm. sàcc ba jaaykatu drogue ba képp kuy def lu bon yàlla jox na loolu bu bari xam nga nit ñi dañuy wax yonent bi di fàtte seytaane seytaane yàlla da koo may doole te ñooñu ci seytaane la ñu ànd te yàlla da koo may doole. donc ma lay sant yéen itam di leen gërëm ndax askan wi lii lañ soxla bu ñuy jooytu rek ngeen ñëw filme ko ba autorités yi jot ci xam ni lii mooy dëgg rek ñu ko jàllalee ñu faj ko maa ngi leen di sant bu baax Chérif di leen gërëm jërë ngeen jëf. jërëjëf.